ñu seen diggante ak AS Douane tey jii nag mu nekk euh, coach Pape Malick yow ban jàngat ngay def ci li nga xamante ne moo am tey si match bi. waaw d' abord di di félicité ah. waa Douane di félicité waa Douane di félicité coach Pa bi di félicité staff bi yëpp ak staff médical bi di félicité dirigeant yi. Mm-hmm. parce que c' une première édition. c' pas évident du tout. c' pas évident préparation bi avec le championnat il a eu pas mal de contrainte Covid bi. donc euh, moi je pense qu'ils ont du mérite. ils mhm. ont du mérite effectivement malgré ay équipe professionnelle la ñu dajal. mais ils ont su tenir tête. et li ko gën a firndeel mooy. Mhm. match bi ñu def parce que équipe bii ñu dajal. du équipe bu ndaw. Mhm. équipe bu mag la équipe professionnelle la équipe bu yàgg gañe la. ba pare tey ils ont eu le mérite de d'encaisser euh, avec un petit euh, score si on peut dire. entre guillemets parce que. tey la ñuy euh, tey la monastère di doog a dugal. moins de quatre vingt dix points. Ah. sinon ay quatre vingt y a une satisfaction le plan euh, par rapport a def. Mm-hmm. mais encore euh, moi je dis qu'il y avait la place. il y avait de la être on avait tous nos les cartes en main ñu yóbbu yëpp bu ñu mënoon jongante ak tamit euh, on a quelques faiblesses, mhm. notamment sur le plan du jeu intérieur. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait euh, prendre cela comme des acquis, jël ko comme expérience, comme background boo a ne vraiment mën nañu jëriñ à l'avenir. Mhm. Euh, je vais revenir sur li nga wax léegi mooy l'AS Douane a du mérite sur le plan local parce que bu ñu moo ko yóbbu tey le basket local les résultats yoo xam ne jot na euh, sur le toit du basketball local au-delà de sa bu ñu gisee parcours am je pense que là où ils ont fauté mooy euh, fu ñu perdre jëluñu deuxième place troisième place ñëw jël génn dem tasek le meilleur. Mm-hmm. parce que quand tu es euh, devant avec euh, club boo xam ne il est favori du tournoi parce que bu ñu gisee sur le plan statistique du match ils sont largement dominés. Mm-hmm. ñu ngi doon wax sur le plan défense parce que bu ñu nee wax bu défense wax problème de taille l'AS Douanes wax nañu léegi si plan intérieur bi kon ci foofu laay ñëwaat parce que même sur le plan local euh, ça pêche te ñu wax squatting dañu wax ci squatting boo xam ne ne des na bu baax mu mel ni loolu moo tax l'AS Douanes euh, perdre euh, dans ce tournoi. waaw di féliciter bu baax coach Pa bi. Mhm. effectivement di féliciter équipe douane bi yëpp. di féliciter direction douane bi. Mhm. di féliciter la fédération sénégalaise de basketball di féliciter la direction technique nationale. il faut que équipe sénégalaise yi di dem ci tournoi yu mel nii. manque d'expérience bi dafa feeñ. bu baax ah dafa feeñ basket local bi bokkul ak basket. Euh, africain bi au niveau bi da nga gis ne dafa feeñ dëggantaan. Mhm. ne que ñun am nañu manque am nañu ay lacunes yoo xam ne war nañu ko liggéey. notamment sur le plan scouting. Mhm. nee naa leen fii depuis le premier match loolu mooy gagner match yi à haut niveau. Mhm. et il faut que équipe bu ciy demati lu mel ni ay campagne nga am lu ñuy wax euh, benn direction scouting. moo am directeur scout ak ay quelques éléments scout yi nekk ci biir yi nga xam ne dinañ la mën a saytul équipe yi saytul la yi nga mën a xam même bu fekkee dafa nekk recrutement parce que man j'ai di que la douane a pêché au niveau du recrutement mm-hmm. parce que intérieur yi ñu soxla woon je pense que acca xëy na joxe na tuuti satisfaction mm-hmm. mais Coquelin yi ak euh, euh, Libyen bi. quasi inexistant man côté recrutement man j'aurais préféré ñi nga xam ne tey jii ñoo qualifié l'équipe bi les gens qui sont battus battus autant pour moi ñi nga xam ne tey jii ñooy collectifu douane ñu ànd ak équipe bi parce que loolu moo doon andi tey euh, cohésion ci équipe bi. waaw ah, li fa ñuy def de ñooñu mun nañ ko def. waaw sincèrement vraiment ñi fa nañu de fine bouche. Mhm. Mhm. li ñuy def ñooñu mënoon nañu ko def. kon je dis que booy recruter. Mhm. man su may recruter ku dul sénégalais. dafay ëpp niveau sénégalais mais bu ñu tollee niveau ma jël sénégalais. sénégalais vraiment. waaw parce que euh, nañu waxante dëgg rek. tey euh, booy xool euh, libyen bi. amul ana amulul dara loo xam ne ne. apporté nañu ko apporté vraiment vraiment vraiment. Mhm. tey Sénégal dañu war def ma da xaw ma ndax règlement yi dafa changé léegi. Mhm. mais dama gis avant équipe sénégalaise bu doon génne dañ ko doon renforcer. ASFA génne na fi dem gagné ji tournoi banque ma ñan ñoo ko renforcer ay ñoom Bengali Kaba ay ñoom Jo Lopez. Mhm. te kenn ki Gia la nekkoon kenn ki Asfa dañ leen jël renforcer leen. Mhm. et gagné ji. parce que l' nationale mhm. équipe sénégalaise la ñu la ñuy dem jouer. tey ay aurait pu prendre trois meilleurs sénégalais renforcer leen ci équipe. douane mais kon dinañ jouer basket bu normal aussi tamit. Euh, je dis que scouting bi c' est hyper important. suñu mënee Fatima mën na basket. damay war a dem ba xoolal ko suma bët ci ay du ci ay vidéo laa koy mhm. xoolee naa ko dem xoolal sama bët nañ ko jox moyen mu déplacé wu dem xool ko ne leen effectivement Fatima moo mun baabu kon mhm. di nga xam ne ne scouting bi bu ñëwee loolu di nga am ay joueurs yu baax beneen bi équipe yi ngay joué dañ lay scouté dañuy xool li nga mën ak loo mënul mais yow tamit il faut que tam nga dem xool li équipe bi mën ak li équipe bi mënul dagguma la sa coach mais gis nañ ko ci première quart-temps bi deuxième quart-temps bi ñu gis carrément équipe bu tunisien bi changé système automatiquement adapté wu le squatting bi moo ko indi mais bien sûr xam nañ ne Douane dafa faible intérieurement mhm. seen bal bi premier mi-temps bi yëpp intérieur lañ ko yóbbu ba Douane yi commencé faute faute yu bëri acca am problème ñu génne ko ñu commencé dérouler seen jeu mhm. parce que euh, boo xoolee contre pétrolier feeñ na mhm. premier match bi contre ferroviaire feeñ na contre Zamalek feeñ na tey feeñaat contre Monastir gars yi xam nañ ne ko xool nañ équipe bi xam nañ ne seen faiblesse foofu la du du jeu bi. mais jeu intérieur bi mooy faible bi. Mhm. gars yóbbu football bi. exploité waaw waaw. coach Pape Malick euh, yow la nga jàpp ne si tournoi bi moo manqué li nga xamante ne moo di équipe AS Douane bi est-ce que nekkul joueur yi nga xamante ne ñoom lañu yaakaaroon. muy Biba ak ki nga xamante ne moo di Luis Adams ñoo xam ne dañoo si ba si bi Euh, effectivement parce que je pense que wax naa ko donc euh, loolu dafa nekk benn handicap parce que tey boo xoolee tey su euh, bu dee wàllum expérience tey que ce soit Louis Adams muy Biba ay joueurs yoo xamante ne yu expérimenté lañu te ay joueurs yu yàgg douane lañu. Mhm. donc tey que ce soit philosophie de jeu coach bi que ce soit coach bi lu mu bëgg. Mhm. en certains moments. mënoon nañu euh, ci match yi. peut-être voilà faire valoir seen expérience boobu. Mhm. c'est-à-dire andi loo xamante ne vraiment euh, coach bi peut-être mu ngi ko doon xaar. wala changer cours du jeu bi. mais tey ñaa ñooñu tey boo leen ñàkkee ba pare ñàkk tamit un joueur comme euh, Cheikh Ndoye parce que mhm. vraiment. <laughs> même c'est pas sur le plan offensif mais défensivement c'est bon. un joueur boo xamante ne voilà qui peut énormément apporter mhm. voilà benn Khadim aussi également donc on a amoon nañu possibilité tey peut-être suñu amoon jour yooyu yëpp. Mhm. vraiment wane encore beneen xar kanam bu gën a reluisant parce que tey li doon def dafa baax. il faut pas que les que ñu ñu. ñu sànni ko ñu sànni ko sànni ko fële. parce mhm. que ils ont tenu tête à des équipes. Mhm. professionnelles. de grandes équipes voilà professionnelles yu yàgg dem ci jongante yu mel nii. te le coach Idi wax na ko. il faudrait que suñu club yi ñu leen ni ñaax. ñuy gën a dem ci compétition. internationaux parce que au niveau ça s'apprend aussi c'est te tamit lu mu wax euh, rax ci dolli il yëpp aussi que ñuy wóolu li may wax expertise locale bi ci anam yëpp sénégalais yi xarañ nañu ci domaine yëpp et mm-hmm. rawatina ci domaine sport donc tey au niveau bi tey boo demee jël benn jour boo xamante ne euh, xamuloo ko euh, xamuloo ko wala tamit peut-être professionnel la mais peut-être ñàkk nga xam ci lan la nekk man si côté boobu tamit dama koy rejoindre c'est-à-dire que jël benn joueur local qui va apprendre le haut niveau aussi. Mhm. parce que tey boo jëlee benn joueur comme Pape Moustapha pour le citer comme nu ko citer. Mhm. Euh, tey il va encore apprendre et d'autant plus que c'est pas un joueur koo xamante ne ñàkk na xam au niveau bi. mais ñoom quart de finale moom objectif bi c'était les quarts de finale. mais yow lan jàpp ne euh, AS Douanes. Mhm. am na am ngeen ay tant que des encadreurs waaw déjà man personnellement c'est d'abord parcours bu ñu def. Mhm. parce que tey euh, ils ont montré du jeu. ils ont montré euh, beaucoup d'engagement ci match yi maintenant il faudrait se se à l'évidence c'est-à-dire tey dañoo dajeeg ñoo xamante ne ñoom ñoo leen mën. Mhm. moo tax ma ne tey mais mais mais xam nga lu laay bañ chaque jour parce que. nous on a non mais nous on a l'habitude dañu am basket du football. dañu am la <laughs> mais dañu am football dañuy tóor loolu moom. dañoo yomb am lecture boobu dañuy ñëw. <laughs> mais Fatima yow yaa ko wax sax hors antenne. yaa ne ñaari équipe yi amul y a pas photo. y a pas photo loolu moom am na parce que man bi ma xoolee sax sur papier bi ma xoolee sur papier hmm. ma gis la plupart des joueurs évoluent dans l'équipe nationale je me suis dit que cette équipe en face de la douane mm va être chaud mm gis ngeen ko sur le parquet il y a pas Absolument. une photo carrément sur les tirs primés carrément yëpp dañu ko gagné mais au-delà de ça aussi xam nga boo ñëw face à une équipe boo xam ne mhm. elle est expérimentée mhm. waroon ñëw ne équipe bi daf may gagné à l'avance parce que a senti ça avec les les nu mu tudd les douaniers mhm. benn moment Mhm. bàyyi gars yi déroulé bàyyi mhm. gars yi def seen lecture de jeu gars yi organiser seen jeu tir premier yi réussir loolu lay wax. Mhm. à chaque fois nous on a tendance à chaque fois bu ñu benn équipe bu mag mais tour bi dañ koy tout le temps US bi US douane eh, eh, comment dire US moins tir US benn moment euh, joueurs yi sax seen bopp. à l'avance dañu naan gañ perdre nañ match bi hmm. loolu il faut ñu bàyyiwaat ko parce que basket kenn du c'est le mental hmm. man je pense que tey liggéey bu ñu et ci sport yëpp euh, on doit beaucoup travailler sur le mental hmm, c'est-à-dire avoir la ñàkk dem xare xam ni dañuy dem pour bàyyi foofu suñu bakkan comme j'ai l'habitude de le dire <laughs> parce que loolu moo ñu manqué en fait loolu moo ñu manqué quel que soit le talent quel que soit si on n'y met pas beaucoup d' beaucoup de hargne d' engagement wane ni lii dañuy dem pour joxe lépp lu ñu am mhm. duñ ko bëgg mhm. vraiment dina am problème donc mhm. je pense que le travail mental le travail aussi doit se faire coach di yow yow ban satisfaction nga am ci li nga xamante ne moo di parcours AS Douane bi malgré ki nga xamante ne moo di coach bi dafa nekkoon quart de finale moo nekkoon objectif am atteindre na ko yow en tant que coach encadreur yow ban jàngat ngay def ci loolu ak ban satisfaction nga am ak loo xamante ne war nañ ko jooyanti ci teg objectif atteindre ko. Mhm. je dis bravo parce que objectif bi loolu loolu quart de finale egg nañ ci quart de finale. Euh, li may jàngat ci équipe bi mooy euh, ils n'ont pas été ridicules aussi quand même. Mhm. nañu waxante dëgg. Mhm. joué nañu basket représenté nañu basket local bi vraiment wax naa la le basket local est c'est basket acceptable. mun nañ ko vendre. Euh, li may waxaat mooy que <coughs> waa douane. comme ni ko Pape Moustapha waxee. su su su amee. ñëpp dañ ko war a sotle ñëpp dañ ko war a sotle mooy bépp technicien bu baax boo xam ne ne mën na scouting wala mën na ko de sur le plan défense wala mën na ko aider sur le plan attaque ñëpp dañu waroon ñëw bokk ci su loo ci liggéey bi parce que du du au delà de douane équipe nationale Sénégal mm-hmm. parce que ñoom Sénégal lañ doon représenté drapeau Sénégal lañ doon représenté mm-hmm. donc euh, képp kuy sénégale waroon ci dugal solo xama beneen bi mooy ne xale yi comme ni nga ko waxee la douane lui Adams manqué na leen. Mhm. parce que c' est un jeune boo xam ne il sonne la révolte. Mhm. su fi nekkoon xeex bi bu ko jiitee ñëpp dinañ parce que moom dafa tàmm lool dama tàmm tàmm match yu métti yu mel nii moom mun naa di xeex bi. le premier match il a pas joué le second match aussi on a senti que deuxième deuxième quart-temps ou troisième quart-temps la dugg aussi. Mhm. parce que tey on a vu que. Euh, Baara bi mu xeexee Cheikh Bamba xeex. seen doole dafa néew. parce que bariwul ñu xeex. ci équipe bu tey xeexuñu tey honnêtement mhm. nañu waxante dëgg. Euh, joué nañu seen basket nag. Mhm. mais douane bi ma tàmmoon gis muy xeex. Mhm. bu match bi méttee tey gisuñu ko. xëy na loolu luy. mënoon na ko andi. Cheikh Ndoye mënoon na ko andi Biba mënoon na ko andi parce que ñooñu ay xeexkat lañu. Mhm. exactement eh, loolu bu ñu blessé. pas du mënu si dara loolu mooy ossature douane. Hmm. ah trois personnes yooyu ñooy ossature douane. ñoom bien sûr hmm. Cheikh Ndoye ku ko xam-xam na ne. mu nekk ci match bi c'est un guerrier day xeex lui day dem au charbon. Mhm. Hmm. te su ñu ñëwoon dooleel Cheikh Bamba Diallo ak euh, Pape Mamadou équipe bi day gën a dëgër encore. waxuma ñeneen ñi xeexuñu mais ñii ñoo tàmm gën a xeex au niveau de la douane. man damay ñëw rek si par rapport ak individualité bi parce que wax dugg nga ci léegi ba pare. Mm. ñoon lan lañu mun a gagné les jours là parce que gis nañ prestation aujourd'hui dama koy ñëwaat Mamadou Faye Cheikh Bamba Pape Mamadou Faye boo xam ne xaaruñu ko woon ci compétition bi ñu ngi doon xaar euh, Alkali Ndour mais mu ñëw euh, ci côté euh, réalisation bi mu mm-hmm. apporté beaucoup de choses mm-hmm. chaque match bi nga xam ne dugg na ko mu apporté est-ce que mënuñu génn yaakaar am club par rapport bien sûr mais ah. ah, l'équipe ah. nationale mais man moom laa retenir quoi Babou. <laughs> intégré l'équipe nationale. <laughs> le directeur technique national mi ngi à Kigali doon seetaan tournoi bi. Mhm. Euh, Boniface Ndong l'entraîneur mi ngi doon seetaan tournoi bi. Mhm. ñun sénégalais ñun les techniciens ñu ngi doon mhm. je pense que Pape Mamadou Faye a montré des de très bonnes qualités et de euh, très bons engagements. defe naa jar na même dañ koy dañ ko war a présélectionné mhm. parce que wane na ko mhm. wane na que ne que mën na basket et c'est un meneur de haut niveau mhm. wane na ko euh, Mamadou Lamine Bara il a fait un excellent tournoi aussi Cheikh Bamba Diallo a fait un excellent tournoi ah moomu ah man Atia man ñooñu laa gis ce sont les quatre douaniers yi xam ne au moins ils sont sortis du lot au niveau du tournoi ñooñu wane nañ seen bopp pratiquement euh, Pape Mamadou Faye Cheikh Bamba Diallo Mamadou Lamine Bara Acha donc moo ñooñu génn nañ ci euh, individuellement ils sont sortis ci ci lot bi. Mhm. ñeneen ñi tamit n'ont pas démérité mais ñii moom vraiment ils sont sortis euh, à la tête du lot. Mhm. Euh, coach ban individualité lay waxaat tey parce qu'il a parlé des joueurs mais on revient sur les joueurs qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à la sortie de ce tournoi de ce tournoi autant pour moi. oui bon euh, beaucoup beaucoup d'expérience d'abord. Mhm. je pense que bu ñu jógee fii. Euh, man j'ai euh, je l'ai dit la dernière fois dinañu dinañu changer d'abord seen façon de jouer mm-hmm. seen gis-gis par rapport ak basket bi mais aussi euh, basket haut niveau bi fu mu toll donc tey dinañ ci kenn un joueur un jeune joueur comme euh, Pape Modou Faye mm-hmm. man je pense que ni dina ci jàngat lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri et je pense que moom tamit le fait que il n'a pas je ne dirais pas il n'a pas connu le haut niveau parce que tey demoon na basket yi en Algérie wat donc euh, commencé na déjà nekk dans dans dans. Euh, dans le bain dans le bain. Mhm. donc mais on a vu un jeune. qui a joué comme un jeune mhm. c'est-à-dire que voilà instinctivement de façon délibérée sans pression la doon mhm. demee voilà et ça lui réussissait moi je pense que euh, vraiment ça va beaucoup lui apporter sur le plan de l'expérience ak euh, background ak lépp donc je pense que joueur yëpp tey bu ñu fa jógee dinañ am beneen gis-gis ne serait-ce que yaa ngi ko doon souligner sànq. Mhm. l'organisation bu bul bi am. surtout vraiment joueur de haut niveau yi ñu fa dajel ñi nga xamante ne peut-être. voilà ils ont joué par exemple des ay ay édition Coupe d'Afrique wala voilà, ay euh, en NBA même NBA, oui. ñu côtoyer leen tenir leen tête en mhm. un moment donc je pense que loolu euh, il faut le vivre pour avoir cette expérience là mhm. et je pense qu'ils l'ont vécu et je je j'ose rêver que saa ñu dellu si fii fii dinañu gisaat beneen xar kanam ci joueur yooyu. mais dinañ ko gisaat si benn xaram xar kanamu joueur yi est-ce que loolu tamit la mënu leen porter préjudice ñëw ne nañ ñun côtoyé nañ côtoyé nañ ay joueurs yoo xamante ne c'est des professionnels ñu ay joueurs NBA ñëw fii jël ko à la ñi nga xamante ne ñoo nekk fii basketteurs yi nekk fii euh, dakaar wala Saint-Louis wala Ndar wala luga Louga. ñëw yombal affaire ne ah comme que ñeneen dañ ñëw rek def leen ah, vite fait parce a. <laughs> au contraire je pense que ñëpp yëpp seetaan nañ mooy nekk day bëgg dem li nga xam ne mooy compétition bi. justement comme ñoom ñoom lañ ko je dire ça ma <laughs> bool bi day gën a métti le championnat local. parce que chaque club aujourd'hui rêve di participer. Mhm. fi mu ah, toll doit doit tenir à toutes ces équipes là parce que day jóge fii. bool bi tamit non <laughs> non duñu naagu. bool bi sax da contraire. day gën le niveau du championnat parce que la douane je dirais ma la douane le duc recrutement bu mu def c'est pour aller. à la balle à la balle voilà pour moi. kon même yéen ñii toog fii ku ci nekk rêvé na au jour. bien sûr participer <laughs> ah <laughs> <laughs> à cette compétition non day ah ah mm. euh, comme ni nga ko waxee ah. ñaari phase moo ci am. Mm-hmm. soit ñu ñëw naagu. Mm-hmm. tombé à travers. wala ñu ñëw xippi seen bët. Mm-hmm. xam na ne le haut niveau bokkul ak fii. et ça c'est du très bon niveau. parce que am na ci ay comme ni ko course waxee ay jour yu comme ay jabaate yi euh, nekkoon Zamalek joué nañu Euroleague am ay joueurs NBA yi. yu doon mhm. joué kon soo taseeg au niveau bi boo ñibbisee da ngay resté humble. Mhm. gën a liggéey. Mhm. xam ne yow kon li ngay liggéey doyul. des na nga yokk. parce que jour noonu lay progresser. chaque année war nga xool li la manqué nga yokk. et je pense que comme ni nga ko waxee. championnat bi li ci des a neex lool. <laughs> parce que <laughs> baal bi. baal bi di la seetaan télé <laughs> ah ah, ay équipe yu mag. ay Duc ay Louga. ay Wakaam ay Wakaam. mais ñooñu dañu bëgg a dem. Ah, ñoom a dem parce que ni may météo damay wax fii muy dugg Wakaam Wakaam Wakaam ñëpp la jël si championnat bi. <laughs> DG Pref ñoo jël troisième. ñu ah, mun na dem mun ah, mu ne nii tey fu mu ne nii. Douane na ko leer ne benn match am dootul yomb fii Sénégal mhm. parce que gars dañuy bëgg jël place am ci baal bi mhm. exactement donc mhm. comme ni ko waxee le Duc a fait un recrutement XXL pour mën a dem ci baal bi joueurs yi jël bu demee recruter ay joueurs Douane fay leen plus que ça c'est parce que dañu bëgg nekk championnat Sénégal bi yëpp ñi nga mooy joueur intérieur yi am si baal bi nii presque seen taille à benn joueur bi rek Moussa Moussa moom presque deux mètres xaw ma mais amuñ benn jour boo xamante am même taille boo xamante ne mën na rivaliser ak ñi ñu gis fii nii tey. absolument absolument te loolu dama koy wax souvent ñun Sénégal euh, suñu tendance actuelle on a plus des postes 4. Mmh. on a plus de postes 4 que ay postes cinq cinq waay yenn intérieur yi. moi mm-hmm. je pense que tamit euh, euh, direction technique bi ñu ngi ci tànk yooyu. Mm-hmm. c'est-à-dire. commencé def détection bi. pourtant on a tellement de jeunes à oh, l'extérieur yoo xamante ne tellement de jeunes. c'est ce que je voulais dire je me rappelle man bi ma ñu demee championnat du monde yi. voilà maintenant il ah, faut ah, faudrait les appeler partout en Espagne y a tellement de jeunes yoo xam ne yi nga xam ne ñu ngi am poste boobu ñu ngi am niveau boobu noonu. mën nañu dem défi recrutement bi mën nañu indi beaucoup de choses à cette équipe là. bal bi day changer lépp de. Ah. non day changer day changer <laughs> lépp parce que <laughs> école de basket yi nga xam ne dañu doon téye boy yi. Mhm. di leen jaay ñuy dem ay Espagne. Mhm. léegi affaire bi day changé. day changé parce que xam nañ ne Afrique léegi. et puis dégg naa am na beneen ligue. NBA bu nar a ibi. NBA Africa bu nar a ibi comme ligue. Mhm. donc cela veut dire que bu amee ñaari ligue yi. bu mhm. amee baal bi am NBA Africa mooy deuxième ligue NBA bi. Mhm. ça ça Afrique gars yi dinañu obligé toog. parce que ñun suñu grande taille effectivement. les jeunes ils sont en Espagne. les jeunes sont en Espagne. man gis naa leen gars yi dañu doon dem Espagne dem Espagne dem Espagne. léegi nag dinañ commencé même bu bu leen Espagne proposé. Sénégal proposé leen parce que bu liggéey commencé dañu obligé d'esprit de conclusion loolu sax moo tax baal bi am loolu moo tax kiiw NBA parce que NBA dafa bëgg a fixer africains yi en Afrique. ok c'est important hmm. c'est important. c'est loolu ñu ciy remercier Amadou Gallo Fall ay Massaï Ujiri. Hmm. c'est ñoom ñoo xeex pour loolu mën a am. parce que y a tellement de talent au niveau de la NBA yi. Hmm. au niveau de la NCA y nga xam ne ay africains lañu. et il veut que ces gens-là reviennent. loolu moom moo tax gars yi implanté kii bi. Bal yow euh, dégg ko un Sénégalais. Mhm. déjà qu'on félicite Amadou Gallo Fall c'est le président de. waay Bal bi sama mhm. mhm. moom ñu teg loolu en Afrique pour mën a am deuxième ligue à part la NBA fii rek am en Afrique. léegi yeneen continent yi balaa ñuy gagné yeneen continent yi Afrique moom mooy. Euh, ñun ñun placé wu nañu ñu placé wu nañu ba. score bi euh, ñu rappelé ko rek 86 la woon à 62. équipe bi di US Monastir moo dóor AS Douanes kenn ñu bëri nag yaakaaroon ne. duwaan mu dina jéem a def exploit mais du narul doon lu yomb. Hmm. Fatima ñu bàyyi la rek nga wax li <laughs> mooy mot de fin baax mais xam naa final bi ñu xaar final bi <laughs> ma defal leen benn pronostic ban ban équipe ban équipe la ñu xalaat final bi pronostic affiche final bi. man Zamalek Monastir. Zamalek monastère. waaw Idema Zamalek monastère. ah ñu xaaral ma dem Idema Idema man moom laa gis ah. <laughs> dëgg yàlla non non non non ñaar ñi laa gis Zamalek ak monastère vraiment waaw kon buñ nañu xaar Zamalek monastère dimanche incha allah incha allah waaw am na ñu doon nuyu la fois passée mais on n'avait pas eu le temps de les dire merci Moustapha Diop depuis France merci beaucoup depuis France <laughs> bëri na ñoo xam ne ma tey je remercie Bamba Style si Lacoste bi mhm. ñoo xam ne à chaque fois ñoo may accompagner daal yi am di Colobane chaque fois merci beaucoup ok euh, coach Pape Malick dernier mot moom sama jabar di nuyu waa waa parcelle yëpp di nuyu waa ISPA. seen uh-huh. équipe et di remercier aussi euh, yéen. Uh-huh. vraiment ci invitation bi vraiment c' est un plateau vraiment très riche. Uh-huh. et je pense que tamit ak euh, coach Idi doyen bi jàngat nañu lu bëri. vraiment tamit tey vraiment ça a été très interactif. ak donc di leen remercier vraiment di leen gën a. voilà di leen di gën a ñaanal <laughs> vraiment liggéey bi jëm kanam vraiment te bañ a fàtte tamit sama chéri <laughs> chéri nii <laughs> na li sama jabar moom moo solal moom moo solal bi eh, eh, vraiment di ko remercier aussi di remercier suma yaay mm-hmm, mm-hmm. mais di leen remercier yéen waa 2 mm-hmm. parce que c'est la seule télé bi wane basket bi donc euh, yéen a ngi jaay basket bi actuellement donc waa direction technique war na leen gërëm mhm. fédération sénégalaise basketball war na leen gërëm mhm. parce que tey su doon demee baal ba nit ñi am opportunité di ko seetaan mhm. da leen di gërëm di gërëm El mu bañ a nekk ci lii rek muy championnat d'Afrique muy coupe du monde yëpp lu war a am ngeen war a nekk en direct di ko wane parce que du ñu def loolu di leen gërëm leen sant et vraiment interactive bi am na réaction yi baaxoon na question yi pertinente mhm. yi et vraiment on vous remercie Fatima Silla mhm. ak euh, Babou Ndour vraiment on vous remercie. jaajëf léegi juste waaw yéen itam dinañ remercier seen disponibilité Euh, saa bu ñeen oowee rek ngeen ñëw wuy fi nga xamante moo di waa 2STV bi muy football muy basket du ñu leen mën di oo rek yëpp ku ñu si woo dañuy ñëw fi nga xamante ne moo ñëw seetaan ñëw si plateau bi ñu partage ak di seen ay parce que seen ay ñi nga xamante moo di ndaw ñeeg mag yi dañ si jëriñu di jaajëfal euh, mooy la championne d'Afrique de karatéka di Fatima Silla di leen wax ne euh, incha allah après le journal de 20 heures ki nga xamante moo di Adama Kanté dina la balle ñu bi